mais mais su ma jógee ci loolu ndax euh, su ma juumul euh, Balla Gaye moo war ba ki nga xamante ni mooy Bombardier kañ la janvier. Ah, le premier janvier ngeen war a moom mu dem defi sport yàlla def ne mu ñàkk mais ngeen war a moom du wàññi seen diggante combat Balla Gaye ak Bombardier du ci wàññi daal. wàññi comme nan. mu jóge ci defet te moo leen daanoon ngeen ñëwaat jëlaat ko mu bëriwaat ak yéen. non loolu MMA la demoon boo waxut ak làmb Sénégal. làmb eh, dafa am benn affaire bu ma ci kii bu ma ci bu ma ci bu ma déggoon ci sport làmb dama déggoon ñu ne ku kaawoo di nga toog ñaata mois balaa ngaa balaa ngaa bëriwaat. mais loolu est-ce que làmb fii si exi moom fële la kaawoo Europe te dégg nga Bombardier nee na 30 secondes lañ ko téye xool nañ ko dara xewul boobu beeg yëpp normal na mais man li ma mett mais damay ñëwaat fii bañ Balla dóor ko mu daanu ñu naan kaaw bee ko bàyyiwu te xam naa looloo nar a amaat. Balla est-ce que mën naa dóor Bombardier mu daanu. non ñun gis nañ faayam pàdd lay bañ. ku ko pàdd lay bañ ji. est-ce Balla dina mën a pàdd Bombardier. Balla mën lu raw pàdd nga naan nangam ak sangam Bombardier kay su ne nii yàlla na ko yàlla defal jàmm rek waa seet suñ ko xoolee nangu koo baay bu bëre. ndax ñun dañ koo bëgg daan doo waa xool leneen ndax fu ne nii làmb ji mu ngi sooxe te xam nga ni yéen Balla moo koy neexal nag. mais koy neexal mais dañoo gisoon premier combat bi euh, ki nga xamante ni mooy Bombardier daanoon na ko mu nekk revanche nag bu ngeen soxla te yittewoo ko ndax yeneen combat ngi seen kanam di leen xaar naka ngeen ko noo waajalee. non wax dëgg yàlla ñu ngi ci nag ndax moom nii may waxee yow mu nga dëkk ba di liggéey. mu nga si entraînement yi méttee métti. gars yi ñu ngi fi nekk nag ñi nga xam ne ñoo war a gérer aspect mystique beeg yooyu ñu ngi nekk ci li ñu war a nekk moom liggéey ba rek lañ ko sant ndax Balla dafa am ku mel ni Aziz Ndiaye Aziz sant ko leen lu demal liggéey rek la ko sant demal wuti doole nga ñëw xam nga loolu ku la ko sas rek dafa neex lépp lu war sa yaram xam nañ ko dañ koy def Aziz foofu la Balla atu boobu la am te wax dëgg yàlla mu ngi ci li mu war a nekk su ñëwee ñun li nga xam ne mooy dernier réglage yi la nga xam ne liggéeyoon nañ ko ndax xoolal nañ ni bombardier faay boobu la am xoolaat nañ faay bi mu gën koo wanewaat si loolu la ñuy gën a liggéey waat rek. kon daal di ngeen naa ko neex na bàyyi naa ko. non faay bañ gisoon ba di ci liggéey si bombardier ndax waxoon naa ko faay boobu dama ñëw gën koo gisaat si bombardier si faay boobu rek la ñuy nekkaat liggéey ci rek. Hmm. sunu borom suturaal ñu si may ñu si ndam. yàlla baax na mais dañoo gis fan yi géejawaay neex na te yëngu na mbër yaa ngi dem di génn di bëri di andi ndam naka nga gisee lool. nañ juboo rek dañ ne li tubaab naan li ñoo fee la force nañ gën a juboo rek gën a àndaat rek gën a yéenante ñoom ñëpp jàmm jàmm jéeg lépp am na yéenante bi ba nañ ko gën a yokku rek ku fi am combat rek biir géejawaay bi yàlla na la sunu borom suturaal may la ndam loolu laa leen di wax ak ni ñuy jàppalantee si contact gi. ak di ji xoolal fils de Balla rek combat bi ay écurie Mor Fadam ak fu ne jàpp na ci contact na ak ñoom loolu lan moo ko boole jàmm daf may woo kër si tey fii fekk jamono jooju école bi nii ñu ngi ci gàmm ma ne ko demal écurie Mor Fadam écurie yi Eumeu Sène Junior mu ngi préparé combat ak gars yi nga dem ñu jàppale la. am na si yoo xam ne yii day ñëw école ba contacté na écurie bi jàppante léeg tey mu wax ma ne ko nañ dem géej yóbbu booy ne nañ leen dem géej lépp te teewul écurie Mor Fadam géej ay mbër yëpp doon ñëw di si jàpp di contact ak moom wax dëgg yàlla loolu la rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nañ gën a jàpp rek ñoom daal waaw géejaay ñëm sa kanam